waaw warahmatullah. wa rahmatulah tay ñun waa Macky 2019 ñoo dajaloo fii tey doon waxtaan doon waxtaan waxtaan woo xam ni li sabab mooy fas waxtaan ak waa dëkk bi fas jël ay engagement yoo xamante ni dañ koo jël ngir jàppale président fas yéene koo ci 2019 bi nan la ñuy fexee falaat président Macky Sall 2019 loolu moo nekkoon suñu yitte mo am nak ay points yu bari yoo xamante ni dañoo dajaloo woon ngir bëgg cee waxtaan bi ci jitu mooy li nga xam ni président de la république def na ko fii ci Touba muy loo xam ni ku xool di nga ko gis ku dox di nga ci teg sa tànk ku déglu tamit di nga ko dégg loolu li si jiitu mooy président bi muy doog a toog li njëkk a def lim nga xam ne moom la njëkk président njëkk a def ci ci wàllu social génne xaalis joxe ko guy masaalik euh, guy guy masaalikul jinaan la ko def euh, jumaay masaalik bi ñu koy bi koy defar président bi mu toogee li mu njëkk def mooy génne xaalis bu baree bari daal ko ciy def. te loolu ba mu koy def ñetti nit ñoo ko fekk yoo xamante nii maanaam bëggul woon sax wax ji jëm kaw ndax da ko doon def ngir jëm Sëriñ Tuubaa bi ci toppaat mooy Sinoa yi nga xamante dañ fee nekkoon jamono Abdoulaye Wade procès yi ñu fi amoon bi bi bi président ñëwee dafa laajte Sinoa yi ñaata lañ leen yoreel ci ci bor mu fay ko daal di woowaat nit ñi projet bi mu woowaat Sinoa yi ñu toog àggale assainissement bi ñu àggale ko mu topp bi ci topp mooy canal yi Touba ñëpp xam ne masaan taw kenn du am foo jaar boo demee ñaari étage boo demee mbal boo demee jumaa ji foo masaan dem président yëkkati 9 milliards daal di ko ciy def ñu ñëw mu jox ñu projet boo xam moo ëpp doole mën naa la ci Sénégal ba Sénégal di Sénégal ba léegi autoroute Ila Touba bi mooy projet bu fi ëpp doole 400 et quelques milliards yoo xamante ni président def na ko ci. wëlbatiku waa defaral ñu hôpital hôpital boo xamante ni mën naan la hôpital bi tey bu yàlla dogalee mu noppi kenn dootu fi jóg di dem Dakar dem Dante wala ngay dem fan ndax hôpital la boo xam ne bokk nañ ci ëpp doole ci Afrique wàllum mbay mi président li mu fi dugal ci ay tracteurs kenn mënu laax mu toll bourse familiale yi noonu président mën naan la secteur boo dugg rek ci dëkk bi def na fa lu bare bare li muy di yoxe ci ceeb ci màggal Tuubaa bu ñëwee fi lay nekkaat ba màggal si lu baree bari loo xamante ni mi ngi koy def am ay nit nag ñoo xamante ni dañoo jóg fas yéenee yàq loolu moo tax ñun ñu jóg fas yéenee àndandoo ñun ñi nga xamante ni ay sën la ñu dëkk Touba ànd ak suñu jigéen ñi fas yéenee àndandoo mànkoo nekk benn taxaw ci jëlee fi loolu ndax am na ñoo xamante ni Sénégal mel ni Màkka wala mel ni Madina seen yoon newu ci xam lan leen moo leen ñor mooy seen intérêt bopp li ñu leen di jox ñu koy def seen poche loolu nag ñun ñoo mën a àndandoo mànkoo ko fi def nañ jaxase gu nekk jaxase bu fi kilifa gu màggee Sëriñ Sidi Moxtaar di nekk lu nekk def nañ ko mënuñu ci dara si Muntaxa fi nekk lu nekk président jëflante na ko moom mooy ki ko fekk poroxaan ci opposant dem siyaare ji ne ko ñaanal ma ma ma am li ma bëgg sëñ bi ñaanal ko mu am loolu fi mu ñuy wax am na ñoo xamante ne suba ngoon bëccëg ngi dox ci eh, tànk yàq loolu bu yàggutoo Ndiaye xool nañ bëtub Touba ba xam ne ndox mi fi nekk dafa dansé dansé goo xam ne waxuma la ndox mi di ci di ci naan waaye am na ñoo xamante ni sax duñ ci togg duñ ci naan ataay duñ ci naan kafe président yéen ñu woon ndox mi mu neex ban waxoon ci ba nga xamante ni matériel yi commencé woon ñëw am ñoo xam jug nañ taxaw yàq loolu ba mu yàqu yaxet te ñooñu ñooña di ko def duñ ci lekk duñ ci duñ ci seen i cin sax duñ ko ca togg duñ ca naan duñ ca tàngal ataaya duñ ca tàngal kafe ñun ñi nga xamante nag dañoo dëkk ci dëkk bi te mënuñoo dem bàyyi ko fi ñun ñu jóg taxaw pour fas yéenee donné solo wax ko muy mbir moo xamante ni mbir mu mbir mu la moo xam war nañ ci jël ay engagement président de li mu bëgg ci Touba mën naan la amul benn président boo xamante ni mas nga ko fee def wala nga jéem ko fi bisu sëñ bi muy muy muy muy muy muy màggal Touba gi président bu fi ñëw digg nga ñu def ko fête nationale ba taay bi mu dikkee moom loolu la njëkk a def ba tey jii doo dégg kenn ku ko wax am na Idriss Seck ñoo ngi gis am ñu kilifa yu koy jógee jéem a jàppale di jóg di taxaw di ko jàppale Idriss Seck dafa am règlement de compte ak waa te loolu ñun duñ ko fàtte Idrissa Seck bimu nekké premier ministre ba ni fi joggé amul benn bilan bu massa bo xamanteni ben benn bilan bo xamni massa ko def Touba bimu nekké premier ministre ba ni fi joggé nak kenn mënu ci tek baram mu def fi yu bare bare ci ay bitis yo xamanteni ni manan la am amna na am da affaire bu fi nekkon bo xamanteni ku engagé won la ci Touba bëggoon dëkk bi daan fi def lu ne tabax defoon fi ab usine pour employer fi ay nit Idrissa Seck lolu naqare won ko mu and ak benn homme d'affaires ñom ñaar ñoko likité manan la lolu ñun ñëpp ñu wax xam nañ am na benn bis boo xamante ni suñ suñ Mourtala da koo dem seeti ko ba mu demee jox am manto mu yëkkati manto ba jox ko président de la république jox ko Macky Sall ni ko yéen yéen a soxla loolu. am na ay kilifa yoo xamante ni taxaw nañ assemblée nationale ñu woo leen ñu ni Mbacke Idriss Seck ñu leen fii Mbacke amu fi ba pare li gën a danger mooy li mu indiwaat Sénégal muy mbirum tarixa mbirum murit mbirum tijaan te xam ne loolu suñ Sidi Muxtaar da cee xeexoon ba loolu jóge fi léegi nag bi mu ñëwee def ay bitis ba ba xam ni mi ngi ndax ko xamne yow sa premier ak bi nga njëkk def ci politique 15 nga am dem ba ci nga am 7 pour cent di wàññeeku jëm kanam xamante nuy def mu ne xaaral dem nax mouride parce que ñom japp na ni ñun mouride yi ñun jànguñu wala xamuñu dara ba chaque jour rek da ngay gis ko xam bu defé aw ñom rek day daw day daw day daw tafu tafu ju ci mouride ta lañuy la ñuy wax gëmuñu si dara man nga nax nak wa dëkk bi waye seigne touba mom kenn mënu ko nax ñun nak fas nañ yéene juk taxaw jàppale président de la république fas nañ yéene juk taxaw jàppale président de la république fas yéene juk taxaw fas lepp yéene lu mu def ci dëkk bi ci lu baax ñu fas wané ko ba nit ñi teg seen bët